asalaamaaleykum mbokkee xarit ñu suñu émission homme politique tay ñuy dalal kenn ki nga responsable politique la ci euh, zone ouest dëkk fii ci Grand Thiès mu nekk nag ki nga conseillère la di madame le maire euh, Maymouna Sen. Maymouna dañ lay wax asalaamaaleykum. maaleykum salaam maa lay fay di dalal di nuyu si ñëpp ñu ci Sénégal yëpp mën ci bi info partout dans le maa ngi nuyu yéen ñëpp ci ñëpp ci turam ak eh, voilà madame le maire dañu bëgg rek ñu ñëw tuuti ci li nga xamante ne moom mooy situation politique Thiès euh, depuis 2014 bi ngeen génnee ci local yi ci nga jëlee ndomba tànk nekk conseiller ci conseil municipal bu Thiès Ouest waaye tamit ci biir loolu seen parti APR bëri na ay yëngu-yëngu yoo xam ne def na ko fi ba tey 2016 ginnaaw bi wii bi ak noo bi yéen lan ngeen ci gis. dañ koy sante yàlla. di féliciter aussi suñu mbokk yi ci àndaloon maanaam benn mbokk yaakaar bi ndax dañ ko réussir ñu gagné ci référendum bi largement di ci ma ciy profité aussi di féliciter sama mbokk jigéen ñi ndax ku ne xam na ne jigéen mi ngi ci commencement mi ngi ci tabit ci fin bi ndax lépp ñun la ñun ñooy génne nit ñi ñu dem voté ji ñun ñooy def proximité yi ñun ñooy def lépp kon ñun jigéen ñi aussi ci ndam li tamit joué nañ ci lu rëy a rëy ñu koy sante yàlla tamit ku gis euh, Omar résultat yi ni mu demee nga xam ne liggéey nañu par rapport ak euh, élection locale yi fi amoon liggéey nañ bu baax a baax a baax a baax ñu koy sante yàlla di félicité ñëpp ñu ci àndaloo de liggéey vraiment kontaan nañu ndax lii rek lañ bëgg ndax lii dee wane ne mbooloo mooy doole ndax bañ demee ci élection locale yi ñu divisé wu gis nañ ni mu demee woon mais bii ba ñu àndee boole force yépp ñu liggéey ko gis nañ suñu borom lim ñu ndamalee may ñaan ñu continuer ci dynamique bi ba 2017 2019 mu boobaa leneen la ñuy wax ndax fi mu toll nii guy gi fi nekkoon branche yépp damm na xob yépp ruus na dara desatu ci li ci des rek moo ñu góorlu également euh, mademoiselle le maire parce que tay wax ni li nga euh, toujours euh, zone ouest nek na bastion bo Idrissa Seck mi nga adversaire gis nañ ni zone ouest nak ngeen di jangate li nga xamné fi ci élection yi ngeen waaw ci élection yi liñ nañ 18 partis coalition ñu war kon xam nga loolu jàngat boobu lañ ci am kon kooku effort bu ndaw bu ñu def rek jëlee ko fi ndax moom ceesuwaay yi tànn nañ ko dëgg la teg nañ ko fi mais aussi tamit dafa mel ni dalee na joxul cër daal jël mairie bi dem tayale ko gis nga ni mu def jël la maire Talla la teg ko di jaay xel mu rëy dafa ne kooku peut-être bu ko tegee mën na ko conditionné non non ku ko xool ku ko gis ni muy doxalee xam ne ku dëggu la mu dem ba xamna ne li man ta nek monte mu commencé monter ay meeram ak ay xaleem lu nañu ko koy def lu nañu ko koy wax ne yalla baxna ba benno bokk yaakaar nekké ci mairie bi di jappalé mu def liggéey bu set wécc bu kenn dul lam lamé ñu ma ci profito aussi di lancer appel président de la république ak bonne volonté yi may dégg ñu jappalé ko la vraiment taalasi la ku dëggu ci li def la té liggéey ci rek ko taxajuk té ñu ko fi néwal doole torop torop torop sax voilà voilà. waaw ku dégg li ngay wax parce que tey bu ñu xoolee euh, commune Thiès ouest Thiès nord Thiès euh, est am na benn bataay politique bu am boo xamante ne dañu ne euh, maire yi ci seen biir ñoom ñoo jubawul ba tax na Talla Sylla lépp lu mu yëkkati rek ñu ŋàññi ko ci beneen boor bi it nee nañu Talla Sylla moom moo jiital li nga xamante ne moom mooy intérêt askan wi yéen naka ngeen gisee loolu. effectivement Talla ñoom mënuñoo jubóog ñoom ndax fi ñu ko doon woo moom du doxee foofu. bu ku ko xool xam ne mooy li nga wax rek intérêt askan bi loolu moo ko tax a ñor comme ñoom bokkuñu jëmukaay xëcc nañ ko ci seen côté ba sonn mënuñu am li ñu bëgg peut-être loolu moo leen dese ñu mën a jàmmaarloog moom ci noonu te xam nga ku ne xam na ne Thiès waa bëggul injustice te gisuñu aussi waa Thiès waa aussi gisuñu lu jara tax ñuy ŋàññi taala si la wala ñu koy xarab ndax mu ngi ci bon voie voilà. Euh, voilà mais tamit dañuy wax li nga xamante ne moom mooy euh, parti APR ngeen nekk ci sos ko 2009 ba suñu jol yàlla tey yéen euh, en tant que way politique naka ngeen di jàngatee situation bi parce que gis nañ fi sax ci bu yàggul rentrée politique boo xamante ne ndey madame Diop Ndeye Tické Ndiaye def na ko ca foofu nga xam ne mooy terrain tund bi bëri woon na coow lu ci duppee ñenn ñi rafetlu nañ ko ñeneen ñi dañ ko rafetlu sax waaye ñeneen doxalin bi ci am ak yenn kilifa yi ci jot a ci ay kàddu nekk da loo xam ne ñoom ñu ŋàññi la tant que politique yeen kenn du wax APR te tuddu len parce que yeen ko sos ci bir Thiès ñu bëggon nga ñëwaat jamono jamonoy APR bu deul voilà waaw waaw Omar loolu dama ci sawar ndax lepp fi lañu fekk ñu andon ci ak ñu bari ñu koy xeex guddeeg bëccëg pour ñepp xam APR depuis 2009 xam nga loolu du tay deug la ku ci nekk li ngay ñaan yalla sos parti def ci li nga ci wara def ko ko gis bëgg ko daw di ñew waxuma la tey jii ñii di daw di wutal si parti bi wala ministère yi booba kenn xamaguleen même le président Macky Sall mi booba fii Thiès mën naa ne ñu néew ñoo ko fi xam ñu xar ci suñu tànk tubay fexe ba def ko ci xolu askan bi bëggal ko waa Thiès bëggal ko àdduna bi yépp ba tey jii yàlla def li mu def suñu première élection présidentielle lañ participé ñu gagné ko suñu borom jàppale ko ci loolu kon tey Thiès bu ñu demee ba toll fii ba am doole bii ñu am fii ba ku nekk di xëcc di ñëw biir APR dañ koy sante yàlla di ko rafetlu ndax liggéey nañ ko ndax bu parti bi meloon neneen fii kenn du ñu bëgg kenn du xëccu tamit di ñëw ay kilifa di bàyyi li ñuy def di ñëw uniquement pour jàppale dañ koy sante yàlla aussi di rafetlu ñëw Ndeye Tické ñun amuñu lenn luñ koy ŋàññe wala luñ koy xaram ndax ñun APR dañu nekk parti bu ndaw bu ñu gisee ku ñëw bëgg ñoo jàppale gën ñoo dooleel dañ ciy sawar ñu loolu lañ ñu yaree te dañu toll fu ñu war a yaatalee parti bi xajal ci ñëpp surtout ñun ñii ko sos wala dalal ñëpp yaatal leen ñun amuñoo moom day tikkee day tikkee ñii seen taat la ñii seen grande sœur la ñii seen seen lépp la ñu ngi koy dalal jàmm ak salaam jotewuñu moom dara xanaa bala ngay xuloog nit danga koy xam wala nga koy sosal wala nga koy waxal lu ñaaw xamuñu ko xëy rentrée politique am mu def sax moo ñu xam ko man bokk moo ma xam ko lenn rek laa koy doole di conseiller bu mu nangu mukk ku wutal ay noon ku wutal ay bu mu ko wala ñu def ko yatu xeexukaay kenn na nangu ñëpp nekk noonam mu gëm sëgg teg ci tànkam bu soobee yàlla li bëgg dina ko am ndax APR na coow bari nii rek mais dañoo yaatal ku iñaan fi ku soxor aussi nekku fi wax dëgg yàlla xëy na des fois politique moo mel noonu xol yi dina jóg ku ne am nga pour wax li nga sentir mais du question de ay siis ku ci nekk sa wërsëg suñu borom moo la ko mën a xañ mais du doomu aadama comme yow ñu dañuy rafetlu loolu ci biir zone ouest bi bi ñu yàlla cëralee ko mel ni Ndeye Tické am na xam-xam am na ay diplôme dañ koy rafetlu di ko sante yàlla bu ko kenn wutal noonu nag ndax ko ne xam na ne fii li fi tëyee ñu bari loolu la diw sa la non bu mu dox ci loolu na àndandoog ñëpp liggéey ak ñëpp am bu mu am ak kenn xaar ma yàlla amul diw laa àndal amul diw li seeti ñëpp joxanteeg ñëpp loxo ñu àndandoo liggéey ndax bu soobee yàlla lii ñu bëgg fii ñu mën koo am vraiment ñi ngi rafetlu ñëwam ci biir parti bi. macha les anciens ñom ñoom gisuñu benn poste yo xam dañ leen promouvoir parce que tamit ñom ñoo sank parti bi kon buñu gisé kenen tamit ñew ñu dolel ko ci parti bi day nek lo xamantene euh, xel du nangu lolu xel da ci tay est-ce que tay yeen ñi nga xam yeen ngi fi nek am ngeen benen taxaway bo xamantene euh, pour jigen ñi nek aper ñu mu leen promouvoir ba ñu mun am yenn ndomba tànk parce que politique tamit euh, buñ koy wax dañuy wax ndomba tank effectivement Omar lolu aussi deug la. ndax euh, mooy li nga wax depuis 2009 ba léegi ñu ngi ci parti bi ak damay teg ne góor ñi sax jigéen ñi laay waxal ak suñuy moroomu jigéen ñu baree baree bari bari à na bu njëgeen bi ñu def PCA ñu koy rafetlu benn jigéen amu fi ndombal tànk fii ci biir Thiès waxuma commune ouest bi rek mais ci biir Thiès du beneen jigéen bu fi am ndombal tànk te ku ne xam na ne Omar ndombal tànk sag la ci politicien bi bien vrai que yaa ngi sant yàlla macha allah loo bëgg a faj yaa ngi koy faj loo bëgg a def yaa ngi koy def mais ndombal tànk dafa nekk li nga xamante ne dafay sagal politicien bi da koy siggil maanaam fay lay doon ci sacrifice bi mu daan def jël alalam di ci def jël dooleem ub këram ub njabootam sànni léppam am na ñoo xam ne seen sëy ci la tas am na ñoo xam ne ci leen jógee ñoo am sax jëkkër ndax déjà ku ne xam na ne politicien étiquette bi ñu lay taqal te loolu amul kon sacrifice boobu yëpp ko doomu aadama defee ngir benn jëmm ba yàlla may ko li mu koy may aussi dafa war a gëstu ginnaawam mënta jël ñëpp wuta taqal leen ay ndombal tànk mais am na lu mu doon defee rek vraiment ñun jigéen ñi fii Cees nañ ci gis suñu bopp mais gisuñu ci suñu bopp ci benn côté sincèrement gisuñu ci suñu bopp ci benn benn benn benn côté dañ ñoo seetaan xam naa peut-être looloo jàpp ñu bari ba bu ñu gisee keneen jóge fee ñëw président nommé na ma lii ceci cela ku ne gis boppam ne ah man de démb ak barki démb maa ngi fi président di ma seetaan kii ñëw tey mu def ko lii mais dëgg la sa yemul mais tamit war nañoo xoolaat daal bu baax ndax euh, day yokk frustration yi tamit waaw voilà te kuy liggéey ku ne dafay séentu waaw góor voilà bon loolu euh, tamit day ñëwaat tuuti ci euh, benn kàddu maanaam meeting mu euh, tey bu ñu xoolee meeting rentre politique bu ndey Tické da nga rafetlu ñëwam ci parti bi mais am na kàddu yoo xam ne quand même jóg na fa mu nekk kàddu yoo xam ne dafa nekkul loo xam ne lu leen neex la parce que bu ñu xoolee tey ki nga xam ne mooy le coordonnateur départemental bu Thiès mooy le ministre des forces armées Augustin Tine nekkoon na ko xam ne mu ngi woon ci jotaay bi mais am na kàddu yoo xam ne Mbaye Ndiaye yëkkati na ko ci kanam public bi ba yéen mu nakar leen kàddu yooyu est-ce que mën nga ci ñëwaat. effectivement waaw. boo gisee sax même avant may def sortie bi euh, njëkk naa wax ci site bi Thiès Info meeting bi dañ koy rafetlu mobilisation ba am na doole ndax dañu jógee grand prix chef de l'état ñu dem fa man mii sax mujj maa dugg ndax dafa bëri woon ay nit kenn amul foo aw te ñëpp a ngi toog mënoo ñëw di yëkkati nit naan ma toog dama obligé dem taxaw ci biti peut-être looloo tax ak Ndeye Tické gisante wuñu mais xam nga am na ci ñoo xamante ne bu ñu gisee mbooloo wala nga jox leen micro. dañuy wax ba dañuy wax lu ëpp peut-être duñ ci sax rendre compte wala duñ ko waxee pour lenn mais Augustin mën dina taxaw nekk suñu coordonnateur départemental ñu yàgg ànd ak moom ci combat yépp nag mu rafet du lépp ñu jàppale ko fu ne moom it mu jàppale ñu fu ne Mbaye Ndiaye jóge ba Dakar ñëw toog fii naan Augustin yaa ngi doog a am femme leader kon kooku xam nga saaga nañu daf ñoo saaga ndax tey jii ñun ñii ñu sànni ci ginnaaw bu ñu liggéeyalul woon parti bi ba tay ji parti bi du exi fi ba ku nekk di ko wala ku nekk di daw di wutal si kon ñun liggéey nañ ci lu reey reey reey reey reey reey wax ji lu muy reey yépp lool kese moo ma ci metti mais lépp dañ koy rafetlu lépp xam nga dañ naan wax bal la bu xasee ba génn génn na bul xam nu muy def lool kese ñu ci metti waxi mbay jaay yooyu moom rek ñu ci metti mel ni ñun wuñu woon dara dañ ñoo war jox suñu àq ak suñu gëdd ndax liggéey nañ ko ci parti bi nag voilà. tey bu ñu xoolee li nga xamante ne moom mooy euh, situation politique bi euh, ginnaaw bi ñu génnee ci référendum bi gis nu euh, tey président mu ngi mel ni ku xippi ay bëtam di ko xool Thiès ndaxte cees nekk na ci loo xam ne lu ko soxal ci échiquier politique bi yéen tey ana fan rek nga xamante ne yéen a ngi koy xool ni gis ngeen fa loo xamante ne président war na ci gën a loxoom ba parti bi mën a dem ci kanam waaye tamit Thiès ak Thiès waaye gis ci seen bopp. mooy li wax rek xam nga ñun Thiès ñu ngi doxee ak suñu ngor suñu jom ak suñu fulla gisuñu dara luñ ñu sédd dañoo gore rek bañ a des gannaaw ak bëgg gi ñu bëgg président fas yéene fas yéene koo liggéeyal loolu dong lañ ci am mais amaatuñ ci leneen président nañu dooleel ndax bu xoolee ñu amuñu benn doole te teewul ci sacrifice bu rëy lañ fiy def résultat yi mu am fii Thiès euh, Idrissa Seck mii di maire nekk ci biir cees amu ko Fatick dañu waxante dëgg kon ñun Thiès ñu ngi liggéey bu baax a baax a baax a baax lu ñu manqué mooy ko ñu dooleel kese moo ñu manqué bu ñu dooleelee bu soobee yàlla li mu bëgg Thiès dina ko am te ñun ñu ngi ci tànk yi ku gis résultat yi ñu joxe ci référendum gi passé nga xam ne Thiès mu ngi ci ay tànk dem ci kanam. mais est-ce que du problème euh, ay kilifa yu président de la république une doléance parce que nous ñu gis sax ci yenn page euh, Facebook di publier di par rapport ak euh, promouvoir les femmes tiessoises par rapport au gouvernement de Macky Sall gis na ni lu la. nañ ko ci yi ñu fi comme ñun ci président suñu intermédiaire ci mom yag nañ ko même audience yàgg nañ koo jooylu président moom accédé ci pouvoir ba recevoir tamit xam nga aussi doy na waar nañ ko ci suñu kilifa yépp nañ ko vraiment peut-être xëy na bu dina am changement ñoom ñu ngi dox li ñu mën ñun aussi ku ci nekk yaa dem koo xalaat ne mën Il ba président recevoir waa Thiès yaa ngi dox ndax suñu bu ñu xoolee président de la république ginnaaw référendum bi euh, woote na li nga xamante ne moom mooy dialogue euh, dajale euh, woy politique yépp maanaam opposition ak pouvoir pour ñu toog waxtaan échange ci li nga xamante ne moom mooy situation nationale yéen en tant que woy politique naka ngeen ko gisee. waaw loolu dañ koy rafetlu Omar di ko ci félicité nag ndax lii mu def tey jii yombul ñu bari bëgg nañ ko mais ñemewuñ ko ndax. ku ne xam na ne senegal fi mu tollu won ciowli bari na wax ji bari na pecc xoo beeg lépp mu toog ba xam ne lii jaadootul te xam na ne moom mooy président de tous les sénégalais mu toog xalaat xalaat bu rafet boobu xam ne war leen a dajale leen ñoom ñëpp ku ànd ak moom ak ku àndut ak moom suñu kilifa diine yi suñu kilifa aada yi waaye jàngu bi ñëpp ñu war a toog lan mooy jëmale sénégal kanam kon loolu xam nga ne homme d'état dëgg moo ko mën a def ak euh, cofeel gi mu am ci sénégalais yi bëgg luy jëmale réew mi kanam looloo tax mais mënoon naa toog décider li muy décider yóbbu ko assemblée ñu voté ko am na ci droit day jàll mais dafa wane ne dafa jël askat bi jiital leen ba pare mooy li mu daan wax rek la patrie avant le parti daf ko gën a firndeel woo ñëpp ne leen ñëw leen toog ñu xalaatandoo ñu xàccandoo dóorandoo ginnaaw ay jàmm ndax ku ne xam na ne am réew bu fa jàmm amul réew ma du dox gis nañ fi ñaan ñaanuñu ko yàlla réew yi amul jàmm yépp ni mu mel te ñu suñu Sénégal ga yaakaar naa ne mag ñu baax ñi ñaan nañ fi nag kon waruma gis lu war a tax ñu yàq loolu ndax politique gii nga xam ne yëfu àdduna rek la yëfu àdduna rek la am na ñoo xamante ne ci ay woy politique ñoom nangu ñu dem euh, teewee ndaje boobu muy la euh, sa Seck yéen en tant que woy politique ngeen bokk langue bi nekk fii Thiès euh, ban jàngat ngeen am ci situation bi. ah jàngat biñ ci bi ma ci am moom la ci Sénégalais yépp am ndax ku la woo ñoo leen ñu waxtaan ñu xool nan lañuy def ba Sénégal am jàmm nga ni ñëwoo kon kooku xam nga ne jàmm Sénégal. soxalu ko taxu koo jóg bu sañoon nit ñaa ngi rayante à chaque fois muy am lu ko neex waaye comme ni koy waaraatekat yi waxee rek déjà li dugg ci koor gi te ku ne xam na ne weeru koor bu teroo suñu borom day tënk seytaane ba fu ñuy waxee jàmm du fa am palaas ndax tey jii mënoon nafaa dugg lii ñu am tey jii ku ne joxe sa xalaat ñu waxtaan amul xuloo amul xeex amul reyante amul dara ñu commencé ko ci jàmm mu jeex ci jàmm tay ji bu fa duggon li mën na baña am mën nañoo bañ a dara ndax ku ne xamna na jikkoom lu mu fekk soppi ko dëcc kon koku bo wootee jàmm ñewul jàmm taxu koo jóg te même bu forcé won ñewit du fa def jàmm du fa wax jàmm te on sait jamais bu ñewon sax mënoon naa gàdduwaale laxasu baram commencé ko ci buntu palais ba ba ci biir wis fa ñuy rayante te yalla dimbale ñi lool lépp amu ci kon dañ koy rafetlu mom, mo am lu mu wara expliquer sénégalais yi mom xeyna peut être xeyna li tax xamna li tax mu def ko ñuy lu toll ni président di woote dialogue jàmm pour suñu réew nga ni ñëwoo mel ni doo sénégalais man loolu xamatu ba ci lenn lenn lenn ña fa ñëwoon ñëpp ñu ngi leen di remercier xam nañ ne ay vrai démocrate lañu te jàmm leen tax a jóg may ñaan yàlla musal leen ci seytaane ba lii ñu sumb ñu àggale ko ci jàmm ak salaam ndax suñu sag la suñu ndam la ñun ñëpp. mais madame gis nañu euh, ki nga xamante ne moom mooy Idrissa Seck ci ay euh, fan yu yàggul génn na ay bataaxal yoo xamante ne nii bu ci président de la république tënkoo Sénégal dina jëm ci kanam yooyu mu defoon kon loolu euh, lan la lan la firi ci yéen. xam nga moom moom toujours li li muy wax la rek moom lu mu jëf looloo baax idée bu mu joxee looloo baax lu mu wax looloo baax xam nga liñ ñu naan égoïsme. loolu moo ko dal loolu mooy problème dafa rëy ñun comprendre luñ ko wax dëgg yàlla comprendre luñ ko voilà. Euh, Thiès ouest bi ñu nekk euh, Alioune Sow moom mooy le maire yow yaa ngi ci biir euh, conseil municipal bi liggéey bi nga xamante ne mu ngi koy doxal ci commune bi ban jàngat nga ci am. waaw liggéey bi muy dëgg la ci commune ci maire am laa bokk mais liggéey bi muy doxal ci commune wax dëgg yàlla Omar tey ji mën a xamatuma sax lu fa xew wax dëgg yàlla loolu moom pour ma wax ci lu may tiis lay doon. mais naka lañ leen di écarter ngeen nekk ay euh, conseiller toogal fa ndaw askan wi. voilà xam nga ay conseiller la ñu dëgg la loolu nga wax mais bu conseil jotee dinañ dem assister xam nga lañ naan fukk mënta euh, euh, kenn mënta xeex ak fukk mooy loolu bu conseil amee dinañ dem assister mais tay jii bu ñu la joxee commission nga jiite ko te lépp ñoom ñoo koy defal seen bopp yow nga nekk présidente commission ngay jékki-jékki di gis lu liggéey bi sa commission war a def. beneen équipe di ko def da ngay jékki rek gis ci mbedd mi xamoo yëgoo tinoo kon kay génne nañ la ci. ban commission. man maa ngi maa yore assainissement urbain et cadre de vie man maay vice présidente bi. dene ba sàll moo doon président bi mais moom aussi yu sew sewaan yi ak détails yi moo tax moom démissionné na voilà. Démissionnaire du ci poste président bu commission assainissement. et eh ben, voilà effectivement euh, wa ndax man vice présidente bi. mais pour mhm. temps yi ñi ngi les caniveaux. di mhm. def ay nettoyage ak ne xam na ne lolu suñu rôle la mais wowo ci ñu ci dara da ngay gis ci mbéd mi rek wala nga dugg ci info rek gis lañ ci am Omar wax mënu ma cee sori. mais en en tant que ak ndomb tànk bi nga yor conseillère est am nga droit interpeller le maire ci telle situation ne ko li ñu gis ci nan la demee ak fan la demee ak euh, fu mu jaar ba egg foofu. effectivement Omar. loolu li ma naqari moo naqari ñëpp du man doog maa fa yor commission ñu bari yor nañ fa commission peut-être ci kanam di ngeen gis lépp. voilà bëgguñu def euh, affaire yi ci précipitation loo gis lu nekk dafa am lu mu laaj yoon la voilà. Sénégal euh, président Macky Sall muy seen président parti taxaw na woote ni euh, fas yéene na yóbbu Sénégal ci émergence ñu gisoon euh, problème bi gën a ci Thiès moo doon Transrail daan leen gis ci télé yeeg rajo yi ñuy yuuxu tey ñu gis ni société boobu dafa delluwaat ci loxoy état bu Sénégal ak état malien mu nekk Dakar Bamako ferroviaire mu nekk loo xamante ne yéen woy politique daan ngeen ko porté parce que xam ngeen ni Thiès li nga xamante ne chemin de fer moo doon employé politique boobu président de la République jël ci Thiès yéen naka ngeen ko gisee. xana di ko rafetlu rek Omar mooy li ma la doon wax rek président Macky Sall lépp lu mu dikk askan bi waxuma dina def lépp de waaye bu soobee yàlla dina ci def lu baree baree bari loo xamante ne ku ci nekk mun nga cee teg sa loxo ne lii la def transray ku ne xamoon na mooy bu doon problème bu gën a rëy ci ñun ci ndax ñun xamuñu lu dul raay bi xamuñu lu dul train bi mu xëy xëy xëy lépp taxaw dara doxatul te bokkoon na ci li doxal indiwaat ko ci loxol Sénégal kon loolu ñun dañ koy ndamoo di ko sante yàlla di ñaan yàlla jàppale ko ba lépp lu mu sumb mu bu ko yootoo rek mu jot ci ndax suñu intérêt ñun ñëpp ndax lii nii du intérêt waa Thiès ak intérêt ñëpp la Sénégal gi yëpp la vraiment ñun dañuy rafetlu loolu li nga xamante ne ba léegi moom mooy ci biir euh, Sénégal dëkk bi ni muy doxee yéen euh, ay jigéen ngeen nekk ci am na cër boo xamante ne moom lañ leen di delloo toujours euh, nit ñi di ko jooy muy ci wàllu wër-gu-yaram couverture maladie universelle bi nga xamante ne am na fi est-ce que tey communication bi ci war yéen porté ngeen ko ci kanam population bi parce que dañu gis politiciens yi bu meeting jotee ñoom ñoo taxaw sol seen dàll sol seen bubu ñu gis ne couverture nekk na loo xamante ne communication bi dafa sooxe. effectivement loolu dëgg la communication bi dafa sooxe. lol mom deug la te ñu bari dégg rek lañ ci am xamuñu nan la dégg rek lañ ci am vraiment loolu communication bi aussi fofu mom desna na mom moom dinañ ci gëna liggéey liggéeyaat des na ndax communication bi ni mu wara jallé jàlle wul noonu ndax des fois yow yaay dem da ngay tassé nit diko ko expliquer sax mu nan la luy loolu duko xam mais il faut loolu aussi dinañ ci liggéeyaat bu baaxa baaxa baaxa baax ndax des na ndax président lepp lu muy defal dañ ko wara lepp lu muy def ngir askan bi dañ koo war a fësal ndax moom def rek la mën mais ñun ñooy fësal loolu moom dinañ ci dox bu soobee yàlla ak yeneen ak yeneen yu ñu war a fësal dinañ ko def bu jëree ñu def porte à porte comme ni ñu koy defee ci élection bu jotee bu soobee yàlla dinañ def loolu ba ñëpp xam ko ndax dafa dafa jot nag ñu fësal liggéeyu président ndax ku xamul da nga naan deful dara fekk te yow mi ngi def def na bay bëgg a dee vraiment. Euh, parti APR mu nek sen parti ci bir ties taxwayam euh, nak nga ko gisee ak responsable yi fi nekk seen liggéey rafetlu nga ko wala amna lo ci xamantene ne ñaawlu nga ko wala amna lo xamantene tay bëgg nga suñ ko defé won APR gëna yaatu kilifteef yi gëna mëna fess ñepp xam kan moy kan ku nek jaar fi nga wara jaar. wa Omar ma ngi rafetlu ñepp sen taxaway yaakaar naa ne APR fi mu toll nii moom ñëpp xamante xamante nañu ku ne xam nga sa morom mooy kan loolu moom jaratul sax ñu ciy wax voilà maa ngi rafetlu lii maanaam mooy ànd gi ñu ànd ak déggoo sama boo rappelé wu sama premier sortie maa ngi la koy wax naan la Omar man de bala maa kontaan ma gestu nii gis Augustin Tine toog defaat nii gis Thierno Alassane toog ndax loolu mooy suñu sakk mooy suñu ndam rayante maye ñu leen ñu àndandoo nii def bloc bokk ndey bokk dóorandoo dama koy yàgg rêvé buñ suñu borom defalee loolu luñ def lu sant yàlla man moom musuma ci am problème ndax man responsable yépp laa déggoon docteur Ndiayo ba Abdou Mbaw Thierno Augustin ñëpp yàlla dafa def ma dégg également dañuy leeral sax ni euh, ci émission boobu waxoon nga ci parce que boobu fekkoon Thierno Alassane Sall ñu wàcce ko waxoon nga ni ko président de la république reconduiraat en tant que ministre thiessois effectivement effectivement ndax xam nga Cees lu ñu dooleel lañu dooli la ñu bëgg bëgguñu wàññi bëgguñu wàññi dooli la ñu bëgg moo tax ku ñëw ñu accepté ko te gisoon nañ def na noo ministre peut-être amoon na fi ay problème yu fi jaaroon ay élection ñu divisé wu woon président defoon ci ay sanctions wàññi ko te ko ne xam na ne Thiès ni mu toll vraiment benn ministre doo dooyu fi muy Augustin vraiment Thiès waroon nañu am ministre yu bari ñaar sax dooyu fi président daf ñoo war a dolliwaat ay ministre ndax Thiès dafa laaj bu jàppale ko dëgg ndax mu mën a am li mu bëgg ci Thiès ndax électorat Thiès dafa rëy lool voilà. Euh, euh, am na loo xam ne dañ ko ci euh, njàmbaas maanaam le haut conseil de collectivités locales gis na nii bokkoon na ci ponk ci référendum bi tey est-ce que seen xel làmbaatul foofu ci wàllu promotion. waaw ah ñu ngi ciy am xel mu rafet rek ñun en tant que élu ko ñu ngi ciy am xel mu rafet di xalaat ne président dinañu war a cëral. surtout ñun wa ties mu war nañ ci mëna a nak nag am nañ ci yaakar bu rafet ne président liñ ci liñ ci mom rek dinañu ko jox bu yalla yàlla côté boobu amuñu ci ben xel ñaar wax deug yalla voilà situation Karim wad mi nga xamantene mu ngi ci kasso bi amna ay wax yu commencé genn euh, yeen en tant que way politique ngeen yoré parti bi nak ngeen ko gissé buma tégué fé mbubu politicien bi sol mbubu doomu adama dañ koy lo. ndaxte ku ne xam na ne ginnaaw ay jàmm te kenn yéenewul sa mbokk jullit kaso dugg ñu fa de yàlla nañ ci yàlla musal waaye dégg nañ la fa ne kon bu yàlla defee ñu toog waxtaanandoo ba sénégalais yi ñëpp ànd ci ne wax dëgg yàlla nañ ñaan président mu gracier ko wax dëgg yàlla kon ñu loolu gis ñu ci benn objection su fekkee mën nañ ko gracier ñu ngi ñaan président mu gracier ko ndax wax dëgg yàlla presque tëdd na moitié penam te comme liñ doon wër yépp gis nañ ko te lu ne fàng yaakaar naa ne kenn du ko jeex loolu mi ngi ci suñu ginnaaw kon fi mu toll nii grâce rek a fi des ñu ngi ñaan président bi bu ci mënee dara mu gracier ko tax bu dul dara suñu mbokk la suñu frère la aussi suñu mbokk julit la mu def ko ñu ngi ko koy ñaan amuñu ci benn xaar ma yàlla ñun wa PDS suñuy mbokk lañu ñu mës doon xëy na liñ naan réeroo amul mais ñàkk waxtaan am ba ñu toogee waxtaan buntu feeñ na ci yu bari xëy na Karim wàdd bi moo gën a fës rek ndax li mu nekk ci prison bi mais PDS ak APR benn famille la ñi xamul rek ñoo ciy dugg di diviser di jaxase mais ku ne xam na ne benn famille la président Ablaye wàdd mu bokk jabootee ñépp xëy na politique nag moo tëddee noonu ku ci nekk sa intérêt ngay jéem a défendre mooy li ma doon wax rek am ci ñu bari ci opposition bi tey yi buñ sañal Karim Wade du génn te commencé na masque yaa ngi wàcc ku nekk gi wax ku ci mel ni suñu ndaamal kajoor mi jafurna na mënatul a téye boppam ndax dafa jëloon réewu moom mooy nekk cinquième président te xam ne Karim Wade ko suñu borom génnee ci biti ngelawam sax du déjà commencé na di wax tam fi la daan yor la meñam dañu wara libérer Karim ci cela tay anamu bo buntu commencé feñ lu ne wax nako ci lu ne wax nako ci ñi ngi sant yalla bu baaxa baaxa baax di ñaan président Macky Sall bu ci mëne dara na jappalé ndax ñun aussi dañu wara rappeler wu quelque chose tamit Karim président japp ko won président tëju ko justice bi la won kon président len rek la man ko ndax du moom du juge du moom mooy jugé comme grâce nag nee nañ président koy joxe su ko mënee na ko ci boole ndax ñi muy gracier ay sénégalais lañ comme moom wallaahi moom la ma ciy defale émission bi euh, jeex na ñu bëggoon nga wax euh, say kàddu yu mujj. voilà maa ngi rafetlu émission bi di la remercier tamit comme ni ma ko waxee woon ci commencement bi di nuyu ñëpp ñi ma di njëkkee ci ñi ma bokkal fii zone ouest bi commencé ci jigéen ñi ndax ku ne xam na ne jigéen mooy lépp di nuyu Umu Njaaj vraiment ku ne xam na ne ci ouest bi jambar la fi di nuyu aussi soxna ramadem aussi def na ci zone ouest bi liggéey bu reuy di nuyu aussi madame Dia aji jaata ku ne xam na ne aussi momit jambar la mi ngi def liggéey bu reuy ci zone ouest bi Seyna bu jonn aussi la même chose ñëpp ci zone ouest bi def liggéey bu rëy kenn naa tàppale wu ko di nuyu aussi sama grande sœur mu nekk ci est bi aussi muy ndey sukkay ku ne xam na ne jàmbaar la moom it mu ngi def liggéey bu rëy ci zone est bi ñu dugg zone nord moo nuyu suñu sœur Seynabou Ndiégène di PCA Petit Train Bleu moom aussi mu ngi def liggéey bu dooy waar ci zone boobu di nuyu ñëpp muy la ministre des forces armées Augustin Tine di ko nuyu di nuyu son directeur de cabinet muy Demba Diouf di coordonnateur aussi fii ci zone ouest def ci ñun lu politique ba tey ji sommes toog di jàkkaarloog askan bi di exprimer vraiment def na ci ñun lu baax te aussi di ko remercier di nuyu docteur Ndiaye sama xarit di nuyu aussi sama xarit moom it taxawu ci yu bari nag wax nuyu